Heavyweight.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 doon raasaatu jabaram waa ji mu ngi wuyoo ci turu oote di enseignant à poste ci bi muy jàngale ak soxnaam moom daal paaka la jël fekk beneen collègue enseignant mu taxaw mu dal di ko koy jam ndax nee na waa ji da doon raasaatu jabaram moo tax ma ne bàyyi leen jabaru jàmbur yi mbir moomu nag mujj naa teeri ca tribunal ca kanamu yoon enseignant bi def njombeli nee na ay yooni yoon bëtam moo ko may collègue enseignant boobu di jëppi soxnaam te nee na yàgg naa wax collègue am bi na bàyyi soxnam waaye waa ji dëgër bopp dëkkee laamisoo ak moom ma ne tappanteeg soxna ak jàmbur ak bëreeg moom nii rek soxnaam si tamit ci kanamu tribunal wax na de ndax moom i nee na lu waral jëkkëram ji yor melokaan bii fan yi dafa am problème mu wér gi yaram teg ci ne ay fan sax ci ginnaaw feebar boobu mës na koo daaneel ba ñu yóbbu ko ci ab sëriñ mu defal ko ay sangaat ba mu ca jógee ba léegi daal ci la jële melokaanam bii mu am ma ne mbaadu fiiraange ko ko teg jëkkër ji tamit ba ñu ko laajee ci kanamu tribunal lam ca tega doy waar ndax daf ne ay fan a ngi yor melokaan bii mu mel ma ne ko fiiraange de mën naa def loo nit lu ne mën naa mel loo nit ne moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax ñaari malien yu góor yi nag li ñu def ñaari malien yu jigéen yi doy na war ndax dañu leen a kàmb ba ñu ñëw ci nekk ñu tëdd leen fanaane leen violé ba bët seet eskay ñaari malien yooyu dañoo dajeek seen ñaari morom malien yu jigéen yi ci ab soirée bu ñu organisé woon ñoom yi bi ñu fa gisante soirée bi ci la ñu échangé ay numéro ñaari malien yu góor yi ne mën nañ leen a wutal liggéey naka noonu bi soirée bi jeexee ba ma may fan ci la ñaari malien yu góor yooyu dëkk ca ginnaaw raay joxe rv ñaari malien yu jigéen yi di leen envoyé passe ngir ñu fekk si leen ngir ñu wutal leen liggéey naka noonu ñaari malien yi fekk si leen ca ginnaaw raay ma ne ñaari jigéen yooyu bu ñu yegsee ñaari malien yu góor yi gàtte lañ leen def teg ay lekk ak ngi naan tàmbalee sulli waxtaan waaye ñaari xale yi jigéen yooyu bu ñu toogee toog toog waxuñu leen waxi liggéey toog toog ba timis di waaj a maase ba guddi gi teru furaas gisuñu liggéey waxuñu leen waxu liggéey ci lañu tàggoone dañuy ñibbi waaye bi ñu tàggoone dañuy ñibbi ñaari maliens yi di leen baab ngir ñu toog ñaari xale yu jigéen yi bu ñu insisté dañuy dem ñibbi ci la ñaari maliens yi tëjee buntu néeg bi ñu naan deetawaay ñu yokku son rajo bi ñaari jigéen yooyu ci seen néeg fanaanee leen violé ba fajar jot ñu génne leen sànni ci biti ñaari malien yooyee nag bi ñu jibee ca xaar yàlla dal di nettali mbir yi seeni ñooñ ya ci la ñu porté plainte ca police bu ginnaaw raay naka noonu ci la police ñëwee ci chambre ba fekk chambre ñaari samba boo yi tëju ñu fëgg fëgg fëgg fëgg kenn ubbiwul ci la ñu daggee bunt bi fekk benn waa ji moom tëdd di xaran ñu ne ko nip teg loxo waaw góore waay keneen ka ca des moom fi mu ne ñu ngi koy wër ndax daw may la def ma ne ko door ci de ak suñu policiers yu xarañ yi bàyyi leen violé jigéen yi bàyyi leen violé jigéen yi waaye ku ci violé jigéen yi rek lii moo lay dal mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon yeneen xibaaru buzz